senegal ziar naa leen màggal naa leen di leen jox seen wàccuwaay ma waxati rek ngeen saagaati mais amul benn problème defar réew mi rek moo ñu tax a jóg. gannaaw x bet bi naar bi nga xam ne mu ngi yóbbu avenir u ndaw ñu alaaxira tey jàmbkatu diw yi laay waxal lépp lu fi waay jàmboon bu leeboo na nga ko jaay balaa le deux parce que après le deux lu askan wi di lekk dinañ ko saytu. lu askan wi di nan dinañ ko saytu lu askan wi di diw si seen yaram yi dinañ ko saytu su ngeen demé ci rew yu normal yi nit du fa nelaw yew rek jambu sey diw rek ñew tok di jaay boko defé ci kaso bi ngay dé Sénégal nak la ay dof di nelaw ba yew tok di jambu seen ay diw tok ci internet bi bolé ko vulgarité bu doy war, né dañuy jaay ay diw kenn terewu leen ngeen entreprendre waaye dem leen ngeen saytu nu ñuy liggéeyee mbir moomu noonu waaye yeewu rek toog dem jël say xànc ak say xuus ak say xacc jël ko jàmb ko ñëw jaay ko askan bu ñu diw ko ci seen yaram bi moo tax fii ak cinq à dix yi di ñëw di gis ay maire yu dox di mel ni ay golo yu ŋas te lenn tegu leen ko lu dul seen produit yu bon yi ngeen di jaay ci réew mi gis ngeen produit yi nga xam ne moom la nit ñi di xeesale partout dans le monde dañu koy dugal ci ay laboratoire yu mucc ay saytu ko ba pare am ay spécialiste yu xarañ yu ko saytu ba xam ne lii du indi indil askan wi benn loraange waaye Sénégal amul kenn kuy saytu li askan wi di consommer moo tax à partir de le deux lu ngeen fi jamboon jaay leen ko balaa le deux ndax fi mu toll nii dootuñu tolérer benn jàmb ci réew mi Sénégal day changé de tappale dootu fi am li ma ci gën a metti nag vulgaire ngeen soof ngeen ñaaw ngeen te kenn xamul lu ngeen di nuru seen bopp yi ndox fanaanu ci wasalaam ñi ngeen fi jàmboon nag évacuer leen ko balaa le deux